donte làqu na ci zahir waaye sëñ daam a ngi fi ndax ki toog mooy moom sëñ xalil fii laa jaar ak sëñ bi ci lu nu mën a wax nag sëñ Ablaye Ndiaye ngi nii damaa yoon tawat gu metti foo na dem naa fa ba may see xool nga ba ma ubbee talaata googu ba ma tiitee laa wér bopp boo xam ne buy metti da ngay dañ may jërëjëf bopp boo xam ne buy metti góor yàlla moo ci taxaw waaye ba ma nii tël ba ma tiitee laa wér barkeb Seexul Xadim kon loolu war naa mën a tax ma bàyyi te yëpp daal di ñëw boo gisee ma xaw a guddee dañoo amoon mbokk moo xam ne su ma dëkkandoo la amoon li xew ngénte te ma bokk ca moo tax ma ne sëñ Modou Ndiaye mii lu mu guddi guddi daan fa dem waaye la ca toog la ca dollee ko mooy nun ñii waxuma kilifa yii nag waxuma ak yéen ndax sañu ko sañu ma wax ak yéen sañu ma leen a jox ndigal mukk nag waaye nag sañ na ma maa fàttalante ak yéen ngir fara tax ndax alquran mënu ko wax wa dakir fa inna dikra tanful muminin kooku bàyyiwul kenn nag fàttalante moom war na ku ne ab jullit ak mu jullitam bu dee ndigal nag wulul sama digganteeg yéen ndax waruma leen a digal waaye li fekk me maa ngi fàttali te muy jëriñ it waruma noppi nag ngir fazakir in fata in faati dikra del fàttali li fekk bat mi ngi jëriñe kon su may wax ak yéen fàttalante rek la waaye ñii di sama bokki taalibi yii sama nawli yii nga xam ne ñoo takku ñooñu sañ na wax ñoom ana lu koy maye mooy jaayante képp si Abdoulaye miin séeréer la comme nun noo bokk mel ni noo bokk benn waaso noo bokk la ja séeréer ya moom sëñ Abdoulaye Ndiaye mii kera ba muy bàyyee koo Touba takk ndigam topp siñ daam maa ngi fi samay nawlee ngi fi waaye mu bàyyi addina bàyyi bokkam ci zahir bàyyi dëkkam ci zahir bàyyi ittam ci zahir léppam mu def ko mu jox ko sëriñ daam loo sëñ daam loo ne yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la suñu am sa gërëm na la suñu Ibrahima gërëm na la gërëm naa la loole na nit fi muy jaar ba am ka laa bëgg ñu fàttali suñu diggante waxi kese mayewu ko Cheikh Amadou Moussa Falilou daawoon sëriñ ko su la moom sëñ moo daa bala sama sang ba ne ko yoonu murit wii képp koo xam ne liggéey loowu la kooka moo la xaj addina ak àllaaxira gën jëm chamour Amadou Moussa Fall lu ma ko sëriñ ko soo suloo yoonu murit bi képp ku la liggéeyloowul moo la xaj adina ak alaxira nit ta am tedd nga adina te liggéeyut nit ta am tedd nga alakhirah te liggéeyut kon liggéey bobu la bëgg a soññante sama bokki taalibe yii ma ci jital jëwrin géej njay mbale géej ma ngi lay fàttali di fàttali sa bop ne sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo gën ku yàlla bin mo gën ku yàlla bin te waxuma ko alquran mo ko wax وإنك لعلى خلق عظيم سيغ الخادم خادم الرسول سامب خليم ام غوغي مو واخال بابام ني خليم جي بوكو تا خليم اي غاي خليم سيغ دي بوكو تا خليم اي غاي بانتو خات غا يات دار كوي سوت ووت اباب خليم بوكو تا خليم اي موم نينا سما خليم من سيغ توا ميغي ملني جاسي غور يالا بن جاسي ngay jël muy dul xaf ijal yaasir rijal la wax demal demal sama xalima mu mel ni jaasi góor yàlla ya kon xalimam sëñ Tuubaa téel ma ko kon bokkut a xalima yi xew ak yim fi fekkit bokkunu nag daa bi mu samp xalima ga it wax na ne bokkut ak daa yii daa yii bokkunu daa wax ne sama daa ñaan na borom bi mu barkel ka ba mu mel ndoxum asamaan si te ñi nga xam ne ñooy dox ci science xam nañ ne suuf balay dund asamaan saa taw bâtiment yi bu yàlla tawutoon bâtiment yi fay mab

kenn ku dul moom mosoo koo am mosoo koy mën noonu mu samp xalima mu siwul xadim xadim rasul ne kon loolu yàlla wax ci alquran ne wa innaka la ala xulqil azim sëriñ bi samp xalimam te it suñu xali billahi lazi la ilaha illa huwa siwul xadim kan du moom moom laa mos a ne su ma sampee gi jàkkaalug sayidina Ahmad muy muñ su ma nee càpp xalima gi dëkk damay jàkkaalug rasul ay muy muñ waaye su ma gestoo iblis muy wañaaro di jooy iza katabtu ibtasama sujaam wa لحاسد li xaasidi aw jaa waaye iblis mooma du iblis ma امنا de ba tey am na am na سين ba ne dara دي sëñ Tuubaa yi seen xol di fuur di takk ñooñee set iblis la ba léegi ñu ngi fi ñoo xam ne bu ñu wóor wala ñi am lu ñu linkar ci xasida ñi set iblis lan ba léegi ñi ngi fi la sëriñ bi waxon mo roy moo rogal ko ci ñoom ñi nga xam buñ ne ciap xasida duñ muñ مكة ابن سيام مدير بشير خليفة العالمي نيوني موي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلولو بفي بفي جو لو دي في جو تي لا سامب خليم ام سيو خليم واخات نا يت ني موم لا موسى ديغ ني واخوما نك ني اموت واي موم لا غيس موم لا ديغ موم لا جانغ موني سوما سامب خليم غي ديك اراس دي ينغو كرسي دي ينغو ملائكه يسبات اذا كتبت إيه إيه تسعى رسول باقي wa sabbahat malaikatu baqi mu sippanga kalimale a kalimale nim sin tubam sippangan kam nana arasa yo'no kadam reng reng reng reng reng malaka kinam jokajal sin tuba